la ilaha illallah secret bi nag dafa aju ci wàllu ubbeeku gu yaatu lool ci wàllu wërsëg nga xam ne aaya alquran la boo xam ne dafa am nu ñu koy tàggatoo maanaam mooy nu ñu koy liggéeyee aaya bi nag mi ngi ci suuratu zariyaat mooy aaya ba suñ borom tabaaraka wa taala di wax ca biir ne inna allaha huwa razaqu zul quwwatil matin ñu baamuwaat ko inna allaha huwa razaqu zu quwwatil matin aaya boobu mbokk yi ku tedd ki bind na wax ne képp koo xam ne mu ngi def saayu yu jullee suba ba noppi wird ko maanaam vingt-sept fois nga di ko wax di ko baamu ba mot ñaar fukki yoon nag juróom-ñaar waxtu wo xamee ne julli nga suba ba nopi diko def saxal ko di euh fan yi nga xamné mom lay bëgg wax sëñ bi wax na ne képp ko xamné def nako ko insha allahu taala suñu borom tabaarak wa taala dana ko defal wursu bi yaatu lool dana ko ubbil ay buntam buntu wërsëgam buntu xéwalam secret bi nag euh, fan yële yàgg na sax léegi mu yàgg lool maa ngi doon def ay gëstu ci internet bi ba gis ni ci mbokki euh, naar yi ñu dugal ko mbokk moo xam ne sax xëy na ab ab nisaaw la waaye ci li ni mel lay yëngu moo xam ne du sénégalais waaye mu ngi nekk ci réewu naar yi di wax ci seenu làkk ba ma ko dégloo mu nekk ni ma ko woon ci mbindam ku tedd gi ma ne secret bii de xam naa ne nekk na secret ba am solo ndax bu ñu demee ba euh, ñu xonq ñi dem ba mu bokk ci seeni secret yi nga xam ne ñu ngi koy laabire seeni seeni réew ngir nit ñi mën koo jëriñoo ñu ñëwaat fii gisaat ku tedd ki mu bind ko ci benn ci téeréem yi loolu doon na secret boo xam ne bu moo tax xonq la kon fan yi nga koy def mooy ñeent fukki fan ak benn quarante et un jours moom ngay wirdu inna allaha huwa razaqu zul quwwatil matin mu nekk aaya boo xam ne ñu ngi ci suuratu zaariyaat ca fa saar ba di jeexee aaya juróom fukkeel ba ak juróom-ñaar jàpp juróom fukkeel ak juróom-ñett danga ko ca fekk kon mu nekk secret bu am solo lool na ngeen ko fonk bu baax te di ko def ndax lépp rek njëriñ la ngëneel la yiw la ñeel ki nga xam ne maanaam saxal na ko kon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm di leen wax ngeen di abone tey aimé vidéo yi di ko partager ngir yeneen i mbokk mën cee mën a jëriñu incha allahu taala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.